mais nag su ngeen gisee ay leader yoo xam ne ku ci nekk mënoon nga toog sa kër loo bëgg fekk la fa ñu nekk ci naaj wi nekk ci mbedd mi di xeex ak gendarme yi di dugg kaso dafa am lu tax du pour ñun la mosu leen dégg mbug ma wax lii man ñeneen ñoo ma ko daan waxal mais dinaa ko wax tey parce que yéen yéen a ñu tax di xeex Sénégal moo tax ñuy wax yaakaar naa ni sax loolu dégg ngeen ko man mënuma lu dul gërëm waa Sénégal parce que boo wootee ci jamono bii nu toll mbooloo mu toll nii wuyu la mais man amatuma dara loo xam ne lii danaa leen ko laaj yéen yéen li ngeen war a def def ngeen ko li ci des kañ ci ñun la kon nag maa ngi leen di gërëm bu baax yéen militants yi militantes yi sympathisants démocrates yéen sénégalais yépp maa ngi leen di gërëm parce que bés bu ma wootee rek dama naan ndax mbooloo moom ma amoon danaa am bu ko bu ko bu toll noonu wala bu ko ëpp te chaque fois que ñu invité ñu def organiser meeting fa tabaar fa kàlla et mbooloo mi di gën a yokk ñetti wax laa bëgg a wax fii tey te dama koy tënk bi ci jiitu moo di Sénégal yépp mobilisé nañu di xeex plan bi nga xam ne moom la ñuy indi te li jiitu ci plan boobu moo di dagg ay solde sénégalais wane nañu seen bëgg-bëgg parce que le 2 septembre réew mi yëpp la téye dara doxul keroog Sénégal yépp wax parti politique yi ànd ak syndicat yi wax ja nekk benn addina bi yépp gis ni dëddu nañu Abdou Diouf dama wax ni keroog Abdou Diouf bu fekkonte ni euh, ñeneen la keroog de à 20 heures soo ubbee sa rajo ak sa télévision nga dégg ko mu def discours ni léegi bàyyi naa parce que boo demee ba réew mi dëddu la da ngay bàyyi après bu fi toogee après le 2 septembre war na xam lu ko fa bàyyi lu ko fa bàyyi mais suñu tolérance moo ko fa bàyyi mais du mobilisation parce que am nañu ko du nit ñu takku am nañu ko du ay volontaire am nañu ko parce que bis bu ko songee daaneel ko amul problème ni Mali def Nigeria, barki demb Nigeria, ko ëpp ay militaire jël pouvoir civil yi ak syndicats yi ñoo ànd def grève ay manifestation ba militaires yi obligé reculer dellu gannaaw kon nag Abdou Diouf lu problème bi mooy li ma daan wax rek Mali dafa am lu ñu fay pour jot ci gouvernement ba dàq Moussa Traoré 300 morts ñetti téeméer yi lañu ñu sacrifié ak yeneen réew ak yeneen réew et ñu ne leen nag ñun yàlla dafa def yu bare daal danañu koy moytu ba xam ne nag amuñu beneen pexe foofu rek la problème bi nekk mais kii nga xam ne mooy Abdou Diouf moom bu gëmoon yàlla xam ne jeexal na parce que léegi ci Sénégal dara. mais man man naa ko lancer un défi na def meeting fii ci place bi na def meeting ci place bi ñëw taxaw ñi ma fi taxawe eh? mu wax ak Sénégal ñemewu ko ñemewu ko man je lui lance un défi na ñëw man ma ànd ak moom depuis le palais ñu stand gi jëm Medina jëm Grand Dakar dégg na ma dee dem dugg Pikine ak Guédiawaye eh? ñemewu ko ñemewu ko voiture blindée voiture blindée 400 millions Je suis le président de la république le président dara Le président dara Vous xam nga ci un président de ngay ñemee ci mais il faut yaa ngi xool ndax de ngi lay coup d'état wala ñi ngi lay de faire. président président à l'intérieur de son palais, derrière ses murs. Nous, nous sommes le peuple. Nous sommes dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Nous, nous n'avons pas peur du peuple. Nous sommes dans notre élément. Nous sommes dans le peuple. Alors, li ma dit wax syndicat est syndicalisme am parti politique dama wax ni quand la situation est normale amul benn problème ku nekk yaa ngi ci say affaire mais bu réew mi demee ba nga xam ni réew mi mi ngi bëgg a sànku ñëpp ñoo war a ànd nekk benn am na syndicat yoo xam ne nag mais Sénégal rek la ñuy gise loolu et loolu nag bala ma koy gis nag gëm ko dama koy dégg rek maa ngi xaar ba ndax gis loolu moo di li am démb su Soukouraka Battara ñaa wax na ko ak Landing bu leen ko xeeb fukki ak juróom ñent lañu ñu xeex pour la première fois ci histoire du Sénégal gouvernement nangu ñu def manifestation def ko nangu parce que xamul xamatul lu muy def parce que xam na ni chaque fois que mu di ko bañ rek ñuy gën a jàppanteeg moom muy gën a métti loolu moo tax victoire bu rëy la que ñu permettre ñu def sitting devant le ministère des finances ñu may étudiants yi ñu défilé victoire la victoire bu am solo.

policiers yi jaaxaluñ ñu ay nit rek lañu lenn rek danaa fi ñambaas tuuti foofu wax naa leen ni buñ leen di sànnee ci grenade lacrymogène ngeen di daw kii lay sànni grenade lacrymogène na nga dem taxaw ci wetam nit la comme yow bu ko mënee noyyi nga noyyi ko comme moom waaye tant yaa ngi daw mu jëla sànni grenade lacrymogène du sotti tant yaa ngi daw di ko gën a sore mu jël kanam googu di la ko sànni yow yaa nekk ci coono waaye bu la ko bëggee sànni nga ñëw taxaw ci kanam ci watam def naa ko fii ci place place place de l'OUA yaa fii bu leen ko nangooti surtout les jeunes surtout les jeunes ni ñuy combattre dans les autres pays pour libérer les peuples yéen noonu ngeen war a libérer le peuple sénégalais donc loolu na ngeen ko jàpp bu baax fukki ci yéen rek vingt ci yéen suñu ñemee da nga ma dem ci ñoom dugg ci seen biir problème bi terminé bu yoré kanu gi sànni grenade nga japp ci bu yoré livre nga japp ci wala bu yoré livre nga yor chaîne de vélo parce que man malen leen wax ni képp ku la am nga droit fayu képp ku la am nga droit fayu amul fenn fu ñu bind ci constitution Sénégal wala ci loi Sénégal ni am nañu droit di japp nit di dor man kuma ma ma fayu kon nak yentam ku len dóor na ngeen fayu il faut que ça soit très clair ñaar benn bi ñu une résolution dégg ci sens bi contre le gouvernement du Sénégal bi ci des ñu le ministre chargé de la coopération avec le Sénégal ni ko lu tax ngay coopérer ak gouvernement bu gouvernement du Sénégal nga xam c'est un gouvernement qui pourchasse les opposants et qui viole les droits de l'homme Nous nga xam ne nag ay libéraux ci ci gouvernement kooku waxi noppi ma ni suñu combat bi fii te on l'a transporté sur le plan international mu am affaire dit euh, alors ma xamal procureur li nga xamni mom la Moustapha Sy poursuivre sur la base de l'article 80 du code pénal article bobu dafa wax ni ceux qui sont coupables de manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, à enfreindre les lois du pays. acte à manœuvre procureur bi tu ci waxu Moustapha Sy lui fii retenir ni même le yon du terrain, l'on l'a leen bëgg wax bu Moustapha Sy wax procureur vous ko ni li mu Vous wax ci affaire u Babacar ne ñu pas kooku beneen dossier la danañu waaye fii mu ne ñetti ñetti kàddu yu fi Moustapha Sy wax mi ngi nii mu ne propos tenu au meeting du PDS du 23 octobre 1993 contenu dans une cassette magnétique au cours desquels Moustapha Sy aurait stigmatisé trois sortes de crises ñetti crises yi mu wax fii nee nañu loolu moom la koy reprocher donnez les papiers aux journalistes donnez les papiers aux journalistes bon procureur une crise d'autorité au Sénégal chacun se comporte comme il veut certaines personnes prenant des décisions alors qu'elles n'en ont pas les prérogatives et à l'insu du président de la République euh, procureur mon traduire parce que Moustapha Moustapha c'est une crise de compétences. Le Sénégal traverse une crise profonde dont la solution dépend de chacun. Ignorer Ablaï et Cheikh Tidiane relève de l'incompétence. ñu ne warula wax wax la une crise de confiance au Sénégal il y a une crise de confiance l'exemple en est donné par le refus du peuple du plan d'urgence voilà li pour le Moustapha Si. lii moo nekk dossier bi vraiment le ridicule ne tue pas lolu ku fait procureur bindul des propos Moune Moustapha a tenu des propos alors que l'article 80 parle d'actes et de manœuvre acte ak manœuvre lu mu propos propos à wax la si wax les propos retenus et cités par le procureur expriment une simple opinion de Moustapha sur la crise sénégalaise actuelle il s'agit d'une analyse qui pourrait être faite par n'importe quel politologue dans une revue ou un professeur de sciences politiques dans un cours d'université. En somme, Abdou ne veut plus qu'on fasse des analyses politiques, il verse dans le terrorisme intellectuel. Et pourtant, l'article 8 de la Constitution dit « Chacun a le droit d'exprimer et, et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume et l'image. Donc Abdou Diouf est en train de violer la Constitution. C'est lui qui devait être poursuivi devant la haute cour pour violation de son serment et violation de la Constitution. Violation de l'article 8 de la Constitution. Parti démocratique sénégalais devait décider samedi bigno, département Bounek au waxuma chaque département à partir de 2 heures nous def manifestation dem qui préfet protester exiger libération Moustapha dans chaque département kenn wax parce que jusqu'à présent ñi ngi def Dakar dañu décentraliser au niveau de chaque département Nous bi dama meeting Moustapha Sy Nous avons nous dox dem ci siège Moustapha euh, Moustarchidine en face ñu def une marche dem fa déposer fa résolution bile loolu moom la bëgg ngeen def ko ma les forces de l'ordre xaw ma yéen a ngi may dégg déglu leen ma déglu gendarme lu dama dinañu def waxoon nañu ni danañ def marche léegi ñi ngi def marche pacifique na ñëpp ñëw ñu wone suñu euh, doole ma ne su fekkente ni attaqué ngeen ñu ak grenade lacrymogène yéen ñëpp ma jox leen rendez-vous devant le palais de la présidence ñu dem fa protester contre la violation des droits de l'homme wasalaam